mbokk ñuy teewlu ci Sénégal 7 dal ak jàmm te ñu am mbégte dalal ci seen émission entretien avec Farba sengor doonoon fi ay yoon yoon ministre ci jamonoy Abdoulaye Wade jiite itam mouvement bi di mbooloo askan wi les libéraux républicains chef Farba Senghor ñu ngi lay nuyu. oui di nuyu ñi nga xam ne. ñoom nga bokkal liggéey bi ak ñi nekk yëpp ci Sénégal 7. di ñu déglu ci biir Sénégal ak ci bitim réew. Farba Senghor wax nañ ko nga bokkoon parti démocratique sénégalais mujj gi nga jóge fa euh, samp ak ñeneen mouvement mbooloom wàdd sampoon seen dënd aussi ci élection législative yu weesu élection présidentielle ngeen jàppaloon tànk le président sortant Macky Sall waaye diggante bi dañ laa déggul dara lu waral tekk tekkaaral boobu. waaw mi ngi aju nag ci fi nga féetee rek xam nga yéen kon da ngeen a yore ñoo xam ne dañuy jot li kalama yi mm-hmm. euh, defe naa ne su fekkoon ne jot jokkaloon ngeen ak man wala woo ngeen ma mm-hmm. da ngeen ma dégg mm-hmm. askan wi aussi danañ ma dégg waaye ñu ngi yëngatu ci biir euh, sunu mouvement boobu nga xam ne dañu créé woon mbooloo wàdd gannaaw ga euh, ñu dem ba tuddee ko mbooloo askan wi ndax xam nga man ak Pape Samb dañu dàqoon ci PDS Euh, bi yàlla defee ñu commencé campagne électorale bu deux 2019 bi ah président Macky xam naa ni déggoon na may wax ne moom mooy gagné te dama doon wax ne enjeu bi nekkul 2019 mais 2024 la euh, ci la jokkaloog man ñu jàppale ko ci élection présidentielle yi yàlla def itam mu gagné gannaaw loolu itam boobu ba léegi dugal nañu ci ñi nga xam ne ñoo koy jàppale bennoo Bokk Yaakaar muy mouvance présidentielle bi man maak Cheikh bu Fall ñi ngi bokk ci euh, conférence des leaders moom si man la bokk waaye moom xam nga c'est un ancien ministre de l'intérieur euh, booba léegi itam ñi ngi dawal ñi ngi ci instance yëpp fi mu toll nii dañu bëgg a muyewu sax en parti politique euh, donc mbooloo askan wi les libéro républicains ñi ngi préparer benn assemblée pour ñu créer parti Mhm. politique ndax ñu mën a euh, continuer ci mouvance boobu pour mën a préparer prochaine élection présidentielle bii ñëw. Mhm. kon mun nañu xaar mbooloo askan wi les libéraux républicains nga xam ne mbooloo wàdd la woon ci jamono doon parti fii ak kañ exactement. waaw fii ak trois mois rek incha allah loolu moom presque lu ñor la parce que fi mu toll nii ñu ngi recenser sunu délégués yi ñi nga xam ne ñoo war a ñëw ndakaaru nekk les membres fondateurs département bu nekk euh, bëgg nañ am fa ñu wóor ñoo xam ne li ñu leen daal mooy eh, ñun dañu bëgg yéen ki seen bopp koo xam ne bëgg nga dara bëgg nga tekki fa nga nekk te nangu nga yow ki sa bopp euh, ci sunu bannière nga xeex liggéey ba nekk département ba nga nekk ba nga am fa dara ñëwal ànd ak ñun loolu la ñuy wax euh, daal sunu sunu gars yi fi mu toll ñu ngi leen di recenser te balaa premier semestre trimestre bi jeex incha allah loolu dañ ko taxawal fii ci Dakar muy assemblée constitutive bu mag boo xam ne dañ ci woo ñëpp. Mhm. parti boobu mën nañu xaar nga jiite ko. waaw incha allah parce que fi dool toll nii provisoirement man maa nekk président bi après sari bu faal moo nekk moom moo ci nekk am na ñeneen ñu bëri ñoo xam ne tam ñu mel ni ay Pape Samba Mboup ak ñeneen euh, ñi ngi ci biir. Mhm. orientation parti boobu lan la nar a doon dégg nañ ci les libéraux républicains. seen orientation exactement luy leen di différencier sunu philosophie sunu philosophie mooy parce parti aussi bëri nañ Sénégal mooy euh, ak sunu doctrine parti libéral la ñu yore mm-hmm. euh, travailliste mm-hmm. euh, social mm-hmm. moom la ñu yore c'est-à-dire li nga xam ne ñu ngi ko jëlee ci président Abdoulaye Wade ñëpp xam ne moo indi libéralisme au Sénégal ak presque en Afrique ñu ko fa indi ci la bokk ñàkk jariñu bu Cheikh Ahmadou Bamba boobu itam ñu ngi woon ci PDS ndax itam ay la yéwén ñun doctrine ak philosophie euh, moom la ñu yore euh, bu Ablaye Wade euh, ak bu partem donc travailliste ak itam sociale bu daal ñun ñu nekk parti boo xam ne dañuy liggéey pour askan wi te képp koo xam ne yaa ngi yëngatu ci réew mi bëgg nañu réew mi egg foo xam ne dana développé wu bëgg nañ itam nit ku nekk dañ ci gis sa bopp. waaw bëgg nañu tiire aussi ay enseignement ci li ñu nekkoon parce que Abdoulaye moom ku nekk xam na ne nit ñi bëgg nañu philosophie bu mu nekkoon waaw am na nag yenn yenn yu ndaw yoo xam ne bëgg nañu ko dindi fexe ba daal euh, muy euh, la nga xam ne moo taxoon parti bu jóg bu njëkk muy PDS ñu fexe ba loolu mu mën a wéy ndax itam koo la booy non héritage yu Abdoulaye Wade moom la gars yi di moom la gars yi di xëccoo te yaakaar naa ne Farba Senghor. Euh, kenn gënu ko xam président Abdoulaye Wade kenn gënu ko xam parti démocratique sénégalais euh, loolu daal moo tax ñun am nañu suñu doctrine bu bees euh, boo xam ne mooy libéral travailliste et social. Mhm. mais lu gën a yomb est-ce que doonul ngeen travailler retrouvailles libéral donc parce que gis nañu Madi Kenya ak Abdoulaye Wade nu ñu meloon mujj gi Madi Kenya dem na seeti ko. gis nañ Abdoulaye waa nu mu réticent woon ci dialogue bi nga xam ne yéen a ngi ci léegi am na yeneen position dem na ci dialogue bi donc wan na yeneen disposition yu bees yoo xam ne nii peut-être boo leen demee ci moom waxtaan ak moom dina leen ubbil buntam ngeen juboo benn yoon wala. no du dootu question wu juboo parce que Abdoulaye Wade man defe naa ne kenn mu taw moom problème. Mm-hmm. man aw maa moom problème euh, soo seetee itam defe naa ne Madické euh, Pape Diop ñoo Omar Sarr mm-hmm. euh, ñu Babacar Gaye Euh, maître Amadou Sall ak ñu bëri daal ñu gën ci PDS amuñu problème ak président Abdoulaye Wade mais doom ji la ñu amal problème li ñuy wax nag euh, golo du bay baabu di ko dundee ñi nekkoon ci PDS yëpp dañu yoon pour askan wi jaarale ko ci PDS jaarale ko ci ki nga xam ne mooy président Abdoulaye Wade léegi dem nañ ba jamono boo xam ne soo ko seetloo deux mille ba deux mille huit président Abdoulaye Wade li mu liggéey yëpp dafa jub askan wi dañ dañ ci ànd mais bi ñu demee ba nga xam ne doom ji dugg na ci lu ñu yàqule yëpp muy ñàkk pouvoir bi muy part bi commencé tasaaro yëpp ci doom ji la jógee. jamono jooju aussi da ngeen ko doon jàppale ci loolu tamit. waaye xam nga doom ji euh, bu njëkk feeñutoon ba 2009 feeñutoon 2009 itam bi nga xamee ne feeñ ne man bokkoon naa si ñoo xam ne. ñoom ñoo ñoom ñoo njëkkoon a jóg ne nañu xàjjale. mbirum parti bi ni muy doxee ak mbirum mbirum doom yi on a man waxoon naa sax président laa ne ko man su ma sañoon dañuy préparer koo xam ne ëllëg su fekkee ne remplacé na la jël na nguur gi su ko yoree benn mandat wala ñaari mandat su pare mu jox ko Karim loolu sax tax na euh, Karim mere woon na ma ci loolu man bi même bi yàqee sama kër euh, bi euh, vingt 23 juin Karim ñëwul sama kër kër Pape Sambou lu dem. moom la dem seeti est-ce que loolu yoon la parce que da que am loo xam ne moom xam na ne man ànduma woon ci ñu wañeeku di ko jox mun héritage yu héritage yu parti bi waaw li am solo ba am solo daal man sama vision léegi mooy d'ailleurs am na ñu ma ci waxtaanal am na ñu bëri ñoo xam ne waxtaan am na waxtaan naa si ñoo xam ne ñoom ak ñoo Omar Sarr ñoom ñoo ànd euh, waxtaan naa ci également même Fada wax naa ko ko Fada Modou Fada Diagne euh, wax naa ko sax ci ay rajo nee naa dañu war a créer Euh, benn euh, kuréel goo xam ne ñëpp ñu àndoon ak Abdoulaye Wade te nga xam ne doom ji moom moo tax ñu génn fa dañ war a créer benn kuréel de concertation parce que ñun ñëpp nous sommes des libéraux te libéralisme dañ ko war a dañ ko war a dundal. genre PDS bis. Euh, non pas PDS bis day transcender parti yi parce que ku ci nekk rek par exemple ñoom Idriss Seck su fekkee gis nañu seen bopp ne war nañ toog waxtaan ñoom Pape Diop ak ñeneen. Euh, ñi nekk ci biir mouvance présidentielle ak ñi ci nekkul su fekkee ne gis nañu ne war nañ man di am weer wu jot ñu am fu ñu toog waxtaan mais su yàggee bunt dana feeñ parce que dafa am lu ñu bokk lu fondamental muy sunu idéologie ak muy sunu philosophie lu man loolu da dana baax sax ci retrouvailles parce que man comme euh, ni ma la ko expliquer soo gisee ñu dem gën a ànd ak président Macky Sall mooy dañuy tiire itam enseignement ci Abdoulaye Wade ba muy commencé ndax euh, réunion bi amoon Mogadiscio ba président waxtaan fa euh, Senghor ak président ak Abdoulaye Wade ba mu nangul euh, Abdoulaye Wade ne ko maître Abdoulaye ne ko yow demal nga defal parti politique Abdoulaye bi mu ñëwee bi muy ñëw ñi nga xam ne ñoo nekkoon kàngami PS yi dañ ko doon xaar pour xeex ak ñoom ñoom Babacar Ba ñoom ñoom Cissé Dia ñoom Lo ñu bëri. dañoon suñu ñëwee fii comme dafa song président Senghor ñun lay suñ ko lay njëkk a jaar voilà bi ñëw mu ne wax da ne man dafa am mouvance bu mondial bu am mooy multipartisme président euh, Léopold Sédar Senghor loolu da cee da war a dugg ba fés yi ba ñu xam ne moom dëkkam génn nañ monopartisme dama ko cee bëgg a jàppale ci la ci la def mu ne kon dafay ñëw ne parti de contribution ne PDS parti de contribution la ci noonu la àndee gars bi ñu ne dañ ko accueillir am na ñoo xam dañ ko jox xaalis sax ñu ko may xaalis ah ñu ñoom Famara ànd ak moom ak ñeneen ak donc je crois que euh, mën nañu tirer toujours ci philosophie ak ci doxalin li wàdd loo xam ne danañu permettre parce que fi ñu jëm nii président Macky Sall yàgg-yàgg dafay bàyyi yàgg-yàgg dafay bàyyi te su bàyyee li mu créé nii nga xam ne moo nekk autour de lui mooy Benno Bokk Yaakaar. foofu ay partie yu bëri fa nekk ay parti socialiste parti communiste nga fa ay libéraux nga fa donc loolu ñun dañu ne nañu ànd dugg ci biir di jàpp ànd ak ñoom di jàpp di jàpp di préparé wu ci suñ ci biir bés bu ñu demee nag ba nga xamee nag moom ci boppam neen day bàyyi su baa ñu xool suñu ne mënee a pël jël affaire bi mm-hmm. jël jël nguur gi yore ko tant yëpp fekkee ne mënuñu ko aussi danañu gis koo xam ne ci biir ku ñu doy koo xam ne su tàllalee loxoom dañ mën a ànd ak moom mm-hmm. ñun philosophie boobu la ñu am mm-hmm. ah, également tam nee nañ ñun contre nañu ñuy financer parti politique yi parce que di wuti askanu réew mi réew moo xam ne réew mu ndaw la ñu soxla ay hôpitaux ah ñu soxla ay école soxla ay lycée soxla ay courant soxla ay ay yoon ngay laajte ñaar fukki milliards pour ñu jox la ko at mu jot ñu koy gérer ay parti politique ñoo xam ne nguur gi la ñu woon ma dama ne loolu man ànduma ci loolu man ànduma ci ñuy financer parti politique yi nit ñi su fekkee ne dañoo bëgg yor ay parti politique di laaj réew mi ñu ñu àndal na kenn ku nekk nangoo génne xaalis ki sa poos ñu boolante ko su dee sax da ngay jënd carte cent franc ba léegi militants yi nangootuñoo jënd carte kenn bi jënd carte ba pare ñu ne dañoo bëgg réew mi ba pare bëgg ku leen jiital ba pare bëgg ñu jël xaalis réew mi jox leen ko lu tolloog ay vingt milliards ne dañ koy financer parti politique yi man ànduma ci loolu ñu daal li ñu li ñu bëgg mooy parti dafa war a am philosophie dafa war a am doctrine dafa war a am yoon ah dafa war a bëgg loo xam ne pour askan wi la ëllëg loolu nag dafa laaj sacrifice ñu nee nañ bu kenn ñëw ne dañ ñuy laaj xaalis ñun dañoo bëgg kenn ku nekk nga am li nga am nga indi ko ñu def ko ci ñu bokk ko gérer pour mën a jot li nga xam ne moom mooy réew mi ci intérêt wi. Ah, seen jamono de amoon na premier ministre ba woon Souleymane Ndéné Ndiaye def révélation di teg tuuma ci sax Landing Savané bu ma juumul naan weer bu ne dinañ leen jox trente million ci coalition ba woon. boobu yaa ngi fa woon mais est-ce que Benno Bokk Yaakaar loolu am na fa fu mu toll nii yéen a ngi jot seen wàll wala. ci loolu man gisuma man gisuma loolu vraiment man. Mhm. gisuma Benno Bokk Yaakaar fu ñuy séddalee xaalis te man kenn mosumaa séddalee xaalis te man naa wax ci xuraan ne mosumaa dem benn réunion. bu Benno Bokk Yaakaar wala mu dem benn réunion boo xam ne. Mhm. séq nañ ko ak président. ñu ne génne sax paas ne am leen ko man sama diggante yàlla di billaahi wallaahi taala laay wax man mosuma ko gis mosuma ko jot. Mhm. man mosuma ko gis. mosuma ko dégg itam kuñ ko jox. donc je crois que euh, xam nga ñii du kenn woow leen ne leen kaay leen ànd ak président Macky Sall mm-hmm. ñoom je crois que ñoom bi ñuy xeex ak ñun ñoom ci seen bopp dañ nekk ay ay ay bànqaas ñii ànd ak Moustapha